xibaar yi xibaar ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm di rafet rafetlu seen ak rajo Futur Media benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. li ci gën a fës dogal gi ñu doon xaar ci euh, mu waroon a tukkee ci conseil ci cour suprême. ñeel parrainage bi gannaaw recours bi ci parti USL defoon verdict ba dàq nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin euh, weeru juin gi euh, daa ngeen ci dégg maître Assane Dioma Ndiaye bi euh, mi avocat bi layal kii di maître Abdoulaye Tine kaddu yi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati démb ci ndajeem kuje politique bi métti na lool ndaw yi Benno Bokk Yaakaar ya nekk ca Mbacké ba tax na ñuy sàkku ci procureur de la république euh, mu autosaisiru ci mbir moom la ndax dañ gis ne daal kàddu yi teggunewul dafa xotti worma njiitu réew mi yi nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru te fekk bax falé ci marsasum tay euh, ñanga won ya génné mbolém élève ya commune ba subvention ñetti millions ci sunu koppar la laaj maire ba gendarmerie mo ca dugal euh, mo ca mujj dugal loxom Sadio Mané dalal na Sané Madio demb ci goudi la ñu Sadio Mané nag euh, ak def lu baax li nu ko xamee euh, jox na Maguette Seck xaalis mu mel ni déggoo ga gën na doxati gën na dëgërati diggante moom ak boroom këram. xibaari biti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne yéen kay yeeg Mouhamadou Mouhamed Ndiaye. gis-gis ak RFM kàddu yu ñàggas euh, yu tegginewul yi ñuy sàmni wante ci ñi seq langue politique bi la ñuy ci njeexitalu xibaar lay doon Aliou Babou ma faree ci machine yi. Barthélémy ñu leen di nuyu mbokk yi di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média dogal gi ñu doon xaar te mu war a tukkee ci cour suprême ñeel parrainage bi gannaaw recours bi ci parti USL euh, bu maître Abdoulaye Tine defoon verdict ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin gi lañu koy mujj xam. ñu teewlu ci maître Assane Dioma Ndiaye di avocat bi layal maître Abdoulaye tiin kàddu yi mu dénk Koumba Sandiane fay te ci ay textu Sénégal constitution nee nañ lu Sénégal signé traité dafa koy imposé wu ci moom maanaam traité boobu mooy ëpp doole loi ak règlement yi Sénégal ñaareel bi traité boobu nga xam ne moo indi cour de justice de la CEDEAO dafa ne cour de justice bi lu mu àtte dafay imposé wu ci état yi cour bi day statuer en dernier ressort maanaam li mu wax kenn du ci tagati baat dafa doon am caractère obligatoire ñu jàpp nag ne tey bu ñu demee ba cour bu mel noonu joxe dogal war nañoo wàccoo ak moom fexe ba ñi nga xam ne bugg nañoo bokk ci euh, élection Sénégal bu mu mun di doon nag te nga xam ne méngoo nañ ak yeneen sart yi ñu bokk ci te ñu bañ nee na kale ndax parenage ndax parrainage boo xam ne loi boobu ci CEDEAO cour de justice dafa ne baaxul d'abord day violer li ñuy wax le secret du vote parce que bo féké am nga candidat yu bëri nga parrainal benn candidat rek secret vote amatul manam fukki candidat ngi ni nga ne man ki lay parrainal ci façon publique moy yow wax nga ki ngay wotel intention de vote loolu tax cour de justice da woné baxul ñaaral bi cour bi né bu féké né ñu ngi ci ay 300 partis nga parti bu war indi parrains ndax ñi bokk ñëpp dinañ un droit fondamental parce que au Sénégal dafa may parti politique yi ñu concourir au suffrage universel dafa may citoyen ñu concourir donc euh, anam yi nga xam loi bi pour nga xam ne nga xam ne ñoom man avocat pour cour suprême daal di ci daa di def li ñu koy laaj loolu la ñuy ñaan pour ñu dakkal loi sur le parrainage bi jàppoon nañ ne tey waroon nañ ci mën a jublu mais comme dàq nañ ko Euh, bala 23 ah dinañ xaarandi ba dat boobu di xaar ba xam cour bi nga xam ne mu ngi ak dossier bi mu seet lan lay dogal. kaddu yi maître Assane Dioma Ndiaye fileeg le 23 juin soreetul kaddu yi Cheikh Abdou Bara Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yëkkati démb ci ndajem politique gi ñu doon amal ca place de la nation métti na lool ndaw ya fe ndaw Benno Bokk Yaakaar ya nekk ca Mbacké ba tax na ñuy sàkku ci procureur de la république mu autosaisiru ci mbir mi ndaxte daal dañoo gis ne kaddu yi tegginewul dafa dañoo dafa xorma. Euh, dafa xotti war moom njiitu réew mi Bathie Sogue responsable politique APR ca Touba ñu teewlu kook euh, Papa Balla Gueye maa ngi ñaaw lu ba fu lu yam di am gàcce ci dëkk Touba ñuy dendale Cheikh Abdou Bara Dolly turam ak Touba ni moom sëtu Serigne Touba la mën a taxaw ci kanamu sénégalais yi di saaga président de la république ak saaga bu ñàkk kersa di wax wax yu ñàkk teggin yoo xam ne jikkoom la tey nag wax dëgg yàlla limu wax ëpp na te lim wax procureur daf kaa war a woo parce que président de la république institution la boo xam ni dafa incarner réew mi mën nañoo def politique mën nañoo protester mais yenn façon waxin yi dafa ñaaw man de damay laaj moom bu dee ab sëriñ la wax dëgg yàlla ab taalibeem war naa mën a am gàcce tey képp koo xam ne moom dafa koy wax ne daf ko yaakaar dana am gàcce ndax sëriñ boo xam ne wax yu bon wax yu ñàkk teggin yow mooy sa kàddu di saaga kilifa yi kooku tey lan lay wuti assemblée kooku place am du assemblée man damay laaj ndax kii wér na ndax feebaru kii jot na nag ñu yóbbu ko hôpital Fann ñu xool boppam bi lan moo ci nekk président de la république du moroomam Serigne Modou euh, Mbake Bara Momita momita itam Gana na euh, lool gannaaw ba coalition bi di Benno Bokk Yakar mom responsable apériste néna na Lol na lool de mi Macky Sall ndax dafa japp né dal choix yi mu def euh, day coalition bi ci défaite ci département bu Papa Balagi. Gueye mu doon xaar ñu bolé ko ci liste Benno Bokk yakar yi ci département bi Serigne Modou Mbacke Bara Dolly ci xol bu jeex mu ngi dal di ñaawlu fu mi Macky Sall. ñu ci ma tan ko ku Serigne Modou am na lu ko neex sëñ Modou amul lu ko neex ca ba muy démissionné ma nga nekk Porokhane ànd ak Idriss ba léegi kenn mësut a gis fu mu démissionné ci Idriss kon nin ko mën a tuddee waa réew mi la d'accord ñoo ànd fi doon nii waaye tey buñ tànnee ñaar ci réew mi tànn benn jigéen ju nekk Touba ci APR Benno Bokk Yaakaar waaw léegi kon lan lañ ko mën a tuddee non pas Benno Bokk Yaakaar mais si Benno ci côté boobu mooy dëgg man dëgg du ko bi lay muy daal di ñaawlu bi yi daanaka moom la ñu doxal ci biir parti bi tax nañu jël ñoo xamante ne ñu yees la ñu daal leen di jiital ci coalition bi lee nan arrêté lobby ah di fekk ñoo xam ne yeyooyu ñu ko joo xam ne xam ne attanuñu ko ñu leen koy jox lu ñu perte loo département bi loola ko teg bas wax bas li mu wax léegi nii buñ ko joxoon ni ko yelloo jox ko ñu mel ne moom Benno Bokk Yaakaar ak yeneen ndaw yu nekk ci la bilaay du nga dégg sëñ wax parce que damay xam ne ay waree politique waaye politique kenn du ko defee ci saal politique kenn du defee ci bu tàngee nga arrière di def ay lobby di ubbi ay permanence permanence jotagut xamu lu jot nan la ñuy def ba nekk unité nan la ñuy def ba ànd nekk benn waaye di wër di nax président di wax loo gëmut loolu moo Modou Bara Dolly nekk ak élection législative yi ñu dëgmal Serigne Modou Mbacké Bara Dolly jamono ji muy artu tey xam ne ne buñ ko joxul gëddëm ci biir parti bi am na yeneen tànk yoo xam ne pare na ngir daal di koy taxawee Papa Balla Gueye Mbacké rajo Futur Média Papa Balla Gueye intercoalition bi di yeewi wàllu nag mu ngi ci ah, ay xat-xat ci département bu Tivaouane la ko waral dafa am ay libéraux yoo nga xamante ni mer nañu lool gannaaw ba ñu gisul seen tour ci liste yi militant yooyu li ci ëpp ci ñoom ñu ngi euh, fekk baax ca Pekes Ngay Tiwaawoon ak Mbayeen ñu ne nag att nañ ko sax euh, ba daal di sanctionné coalition bi ci élection euh, législative yi ñu dëgmal Cheikh Anta Diop. ñii di waa parti démocratique sénégalais dëkk ci Mexe Mbayeen Tiwaawoon jàpp Pekes amaloon ab jotaay bu yaatu doon naqarlu jëf jil leen def nee nañ ci pré-investiture yi dañoo jëloon ñaari candidat yu PDS muy Njaw Caam bu ak Modou Fall bu Kul waaye nee nañ ci mujjantal ga dañ leen na dindi ci liste bi te mbir mi kenn xamul ku ko def ndey ma yàdd ñoo bokk ci PDS. da taale ci nit ñi ci moom yaakaar mais bi ñu tënkee suñu kàddu jiital Alaaji Njaw Caam ñu gis ni liste yi dafa génn ñu tegal ñu keneen koo xamante ni kii bokkul ak ñi tànnoon déception ak xol bu jeex ak jaaxle ndax jaaxle gi weesuwul ñu ànd tënk suñuy kàddu ci kàddu nawle bu fekkente ni direction parti moo def li ñuy def man damaa wax ni tooñ nañ ndax tooñ weesuwul kat ki li mu bëgg xam ni moo koy amal njëriñ nga dindi ko teg fa la la neex ndaxte ñun dañoo bëgg parti PDS bëgg président Abdoulaye Wade. waa PDS yi nekk fii ci département bu Tivaouane ñu ngi sàkku nag leeral ci kii di coordonnateur départemental bu PDS ci Tivaouane Sobel Ndiaye teewal parti démocratique sénégalais ci commune bu Tivaouane. dañ faa def ñaari jigéen ñaari jigéen yañ fa def nag kenn ki ñëwuloon sax ca réunion ba muy ay question yoo xamante ne dañ koy demander direction du parti di ko demander coordonnateur départemental. salle bi feesoon dell militant yi PDS yi nag jóge woon ci gox yu nekk ci biir département bu Tivaouane ku ci nekk yëkkati nga kàddu di naqar lu mbir mi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta euh, période pré campagne bi nag euh, jëm ci élection législative yi. ni ki tey jii bu minuit jotee la ñu koy tàmbali weer la wa nga xamante ni daal euh, dañuy tere journaliste yi yu bëri bokk na ci dafa propagande candidat wala benn euh, coalition ñu teewlu ci kii di euh, Babacar Diagne njiital CNRA conseil national régulation de l'audiovisuel ci li ñu tere ak li ñuy bay ak li ñu nangu campagne déguisée pour xam ko il faut nga demaat fa li soxé décision bi boobu alors gouvernement bi dafa doon jël euh, ay tournée yu muy euh, tournée économique ci tournée yooyu da ngay doon gis ay marabu yuy wax ay ay chef religieux ci gis ay mbër yuy wax ASC ay ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ci ay GIE de femmes loolu moo doon problème bi ndax ñooñu bokkuñ ci élection yi euh, di ci dugg di suuxlu maanaam léegi nag fi mu nekk nii loolu la ñu tere ba léegi maanaam kenn terewul homme politique kenn terewul liste parti mu nekk en campagne non non loolu kenn teroo ko homme politique moom ak liste parti ñoom saa lu neexee ñu campagne loolu mooy seen liggéey loolu mooy seen essence même waaye nag dañuy bañ ñi suuxlu la wax ne ñu taxaw oh, alors bu ñu eggee nag le 10 juillet nag alors bu ko roggee nag ah mën nañu def moom bu ko roggee képp ku am mbooloo képp ku seeti sëriñ képp ku seeti mbër mu jàppale la loolu am ci droit ndax campagne moo ubbi mais fileeg muy ubbi maanaam 9 juin ba euh, mi di jëli sëriñ soxlu ndax loolu soxlu la loolu mooy campagne déguisée loolu la ñu tere ma dool ci rek ne suñu communiqué bi nag dafa def cadrage global maanaam wax ci campagne bi li ñuy tere avant pendant ak bés bi ñuy wote loolu nag lu jar a xool la bañu taxaw rek ci campagne déguisée mu nekkoon kaddu yi Babacar Diagne njiital CNRA Ligue sénégalaise des droits humains génne na ab communiqué daal di ñaawlu nag fitna kit it bundu xatal eh, ñu def ay taskatu xibaar démb ci place de la nation ci bi eh, yewi askan wi Euh, di amal ab euh, euh, ndaje waaye it beneen bundu xatal boo xamante ni def nañu ko ay taskatu xibaar ci makkaanu APR Ligue sénégalaise des droits humains di ko ñaawlu ne daal loole dafay gantal liberté liberté de travail ba pare it dina saxal liggéeyu journaliste yi te loolu du lu gën ci réewum démocratie LSDH sàkku ci mboolem ñi seq langum politique bi moo xam ñi ne ci nguur gi wala ñi nekk ci kujje politique bi ngir rek ñu gën a ñaax ci seen i ñu gën a ñaax seen i militant comportement bi nga xamante ni war nañu ko am jëmee ci taskatu xibaar yi nga xamante ni seen liggéey rek la ñuy def fukki simileek ñaar moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na. ñu dem euh, ca Marsassoum euh, foofu nag étudiants yi nekk euh, fii ci ndakaaru ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar te fekk baax foofu la ca Marsassoum ña nga woon ca mbedd ya ni ki tey ji gannaaw ba ñu génnee mbooleem élèves ya ca commune ba subvention wu ñetti million la ñuy laaj mairie ba gendarmerie moo ca mujj dugal loxoom Bakary Konté coow bu mag mo am fi ci commune bu Marsasoum ay étudiants yi nek ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar cosaanoo fi ci Marsasoum ñom nak ñoo ñëw sept heures ci suba bare yoon bo xamantene mu ngi jóge Sédhiou Marsasoum dem ba ci Ziguinchor ñi délogé école élémentaire collège ak lycée ñu ne nag dañu bëgg nu mu gëna gaawé seen maire di seen mandian dal leen jox seen subvention Fallou Ndiaye étudiant licence 3 mo yoré seen cadeau ñi ngi ci wax di ci def bo ba légui def nañ point de presse def nañ lu nek té gisuñ benn yoon mu réactionné te yaakaar naa ne tamit nag li ñuy dund fële na ci université Cheikh Anta Diop metti na trop trop trop trop trop te bëgguñu tamit loolu noonu suñu ay rak yi di ñëw ñoom itam ñuy dundaat loolu li ñu bëgg mooy lenn suñu subvention muy 3 millions 3 millions kase mu jox ñu ko loolu rek lañ am ak moom su ko joxewul dañuy continuer def niñ koy defee nii rek. étudiant yooyu mer ba futtu ñi ne inauguration pont bu Marsassoum boo xamante ne ñu ngi koy wax diggante le 16 ak le 17 ñi ne président Macky Sall moo koy amal ni nañ dinañ taxaw tem daal di saboter yëpp. te bu fi Macky Sall ñëwee tamit inauguration évaluation bi du am te inshallah amul terminal amul élève troisième kenn du def sax examen bakoy tal kon li ñuy ñaan rek mooy bu fekkee ne dañ koy dañ koy woo ci jàmm ci jàmm la ñuy woo parce que def lii ñu def nii tamit neexuñu mais mënuñ ko ñàkk bañ a def parce que tamit booba léegi ñu ngi koy tàttagal di ko déglu mais moom itam ku xamul buur saay na xam buur dee il est temps nag mu wax ak ñun jëflante ak ñun jox ñu li ñu moom suñu 3 millions bu ñu jotee nag information ci blocage yoon bi loolu moo waral gendarmerie daal di wàcc ci diwaanu soum. mu am nag ay échange xeer ak grenade attaque lacrymogène diggante étudiants yi ak force de l'ordre yi Bakary Konté Sédhiou rajo Futur Média Papa Banda Dièye mooy maire bu Tambacounda yëkkatiwaat na kàddu jëmee ci njiitu réew mi li mu bëgg mooy ñu tabax nu mu gën a gaawee université bu senegal oriental waye yit eh, ñu talil leen yoon bi baye ko Tamba dem ba sogi ak yeneeni doléance yu mu tek ci table bi Moussa Oumar Gueye. maire commune bu Tambacounda di Pape Bande Dièye bëgg ñu daal di tabax université du senegal oriental daara ju kawé jooju nga xamni bobok ni gën léegi si ñu koy wax mën nañu ci jot waye itam ba tey ñu daal di defar yoon route nationale 7 bi nga xamni moy joggé tamba rombu jam Jamweli Mayel di bi dem sogi ci Matam waye itam ba tey ñu ibbi fi ben domaine agricole communautaire Papa Bande Dièye di ci interpeller ki nga xamni mom moy njiitu réew mi di Macky Sall. te Jamweli moo war a abriter l'université de Tambacounda. ba tey jii suñu doom yi nga xamee ne ak suñu rakk yi nekk Dakar. sonn nañu seen condition d'étude ñu mun a ñëw nekk seen dëkk. suñu yeewoo ji seen papa ak seen yaay suñu yeewoo dem jàngi suñu wàccee gisaat seen papa ak seen yaay. yoon bi di jógee Tamba di dem ba Ourossogui ñoo ngi koy ñaan mu defaral ñu ko. les jeunes ont besoin d'un DAC d'un domaine communautaire agricole comme nu mu ko defee ay sangal Sangalkam parce que ñun tey mënuñu nekk fii di dundee ay carottes yuy jóge balee ñaay mënuñu toog fii di jëli ji légume chaque semaine di ko indi su biir dëkk or ko on a la terre on a ci jamono jooju nag ñu ngi amal lancement ngir teg xeer boor na yi nga xam ne mooy indi lotissement ci quartier yu demee ni Jamweli Saare Sili Saare Gilel Nord ak Cité Charbon ñu ne nag buñ ci jógee dinañ dem ci yeneen i quartier yi nekk ci commune bu Tamba ci loolu nag ñu ngi ko doon amal ci teewaayal ay partenaires belges yoo xam ne dañu dikkoon ngir siife benn jokk ak jokkalante diggante commune bu Saint-Nicolas ak commune bu Tamba liggéey boobu nag la ca gën a bokk na ci lu jëm ci wàllub état civil toppatoo kayitu juddu yeeg yeneen yu ni mel waaye itim ba tey toppatoo mbalit mi ci dëkk bi di Tamba Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. hopital bu gi kilifa yëfa ñoom nag ne ñu am nañu njàqare lool ci lu ñeel installation courant yi foofu la ca hôpital ba dañ gis ne daal. hôpital ba dafa màgget installation bi yu ci bëri jaarul ci yoon ba tax na bu ñu euh, bu ñu tëddee daal benn bët la ñu nelawee looloo tax ñu yëkkati kàddu sàkku ci autorités yi ngir ñu jàppale leen ci wàll woowu ndax gis nañu barke Dembo Ndiaye lu xew ca Tiwaawoon Ali Bandel Niang ci atum 1976 lañu tambali tàmbali tabax hôpital bu gi mu nekk tey ci màggetaay gu jéggi dayo ci waxtu bi nga xam ne ñu ngay joy fukki liir ak benn ca hôpital maam Abdou Aziz ca Tivaouane fi la itam bu ñu moyendiwul njombe mun naa am saa su ne ndax installation yi màgg nañu màggetaay gu jéggi dayo ci ab visite biñ fa doon amal jege nañu Jacques Moussa Ndiaye moo yore wàllu maintenance hôpital bi. ni nga ko waxee danger bi ñu ciy daw ci système installation surtout ab l'hôpital de gi comme keroog waxoon naa ko ci benn organe ñu ngi koy construit en 19 1976 respecté wul norme yi yi ñu waroon res parce que hôpital bi léegi capacité d'accueil yu mu dafa yokk installation yi fi nekkoon ba tey actuellement nii su du ay installation yu wóor moo tax actuellement nii ku ci nekk da ngay nekk sous pression par rapport ak installation hôpital bi nu mu nekkee non tëdd nelaw ma doo ko mën parce que lu leen dal suba mën nañoo dal tey ñun ñoo gën a yor li gën a yées sa ci comme hôpital Tivaouane ñun dañuy bind ay correspondance régulièrement di ko envoyé kilifa yi nekk ci kaw mais di ko envoyé suñu autorité nekk fii ba pare di ko imputé kilifa yi nekk ci kaw ñoom ñëpp xam nañ hôpital bu gi moom waaye nag laata sax njombe gi di xew ca Tivaouane ki jiite hôpital bu gi di directeur bi xamal nañu ne moom mettre en place ab dispositif de veille de prévention ngir ëttu bépp njombe ngeen seetloo depuis daaw la ñu reyante avec le conseil départemental ñu jàppale ñu bañ ñu amee extincteur dañ koy décider boobu sax dara xewagul Tivaouane humainement parlant lu ñu ci man ñu koy def bu dee circuit électrique bi on a installé même des des points de délestage léegi bu ma jëlee centrale oxygène bi bu dee risque sécuritaire mën nañ ne oxygène rek moo ci loo xam ne c'est inflammable fi leeg ñuy tàmbali liggéey bu ñeel hôpital régional bu gil bu bes booba nga xam ne ni ki daaw la fi njiitu réew mi ñëwoon lancé travaux yi askanu Matam ak personnel médical bi ñu ngi way di dund ci ay jafé jafé yu metti ci rab l'hôpital bu màgget mu nekkoon seen àttanguwaal yi bandel ñaa fi ci loolu Matam pour RFM directeur directrice des ressources humaines bu ministère de la santé yëkkati kaddu ci grève bi nga xamantini ay agent wala boog ay syndicat yu yëngu ci wàllum paj ñu ngay ñu ngi ko nekkee moom awafal Fall eh, Diagne nee na li gënoon rafet mooy ñu bàyyi grève bi te ñëw ñu toog waxtaan ndaxte réeroo amul ñàkk waxtaan rek am bu ñu sukkandiku ci kàddu yu wolof moom nee na nag ci lu ñeel eh, dëgg dagg gi ñu dagg salaire ñeñ ñenn ñi nee na daal lu yenu maanaa la ku liggéeyul waruñu laa fay aw Fall Diagne kàddu yi mu dénk Salimata Aw yaakaar naa ni que euh, tey jii syndicat yi bu ñu taxawee ni gouvernement bi respecté wul loolu ñun mënuñu ko d' accord parce que point yi nekk si li nga xamante ni d' accord nañ ko ñun ba ku ne signé ko point yëpp suñ euh, gouvernement bi respecté na ko parce que bu dee indemnité de logement bi dañ ne dañ ko réserver benn cadre boo xam ni personnel de santé publique et d' sociale ak travail sociale ñoo ko moom te ci cadre boobu ñi ko war a jot ñëpp jot nañ ko léegi nag bu ñu signé li nga xamante ni dañ dem ba si biir ñu gis ni que am na ay manquement pour man seen taxawaay warul taxaw ni dañuy dox dox ñaxtu wala dañuy grève dañoo war a ñëw taxaw gis gouvernement bi waxtaan ak ñoom pour xool la ñuy càmbaree manquement yi nga xamante ni ñoo am. leneen li ci des mooy dagg yi ñuy wax ñoom dañu grève woon ay jamono yu toog lu yàgg loo xamante ni liggéeyewuñu nañ ko defee woon euh, ca fan yii la noonu lañ ko continué defee li nga xam ne liggéeyewuñ ko dañ leen koy dagg te loolu la yoon wax ñun li yoon wax rek la ñuy dogal. Euh, ci wàllum li xew Tiwaawoon nag loolu mini euh, bi mënu cee wax wax ju sore ministère mu ngi cee wax bu sore parce que comme dafa nekk si loxo yi yoon dañuy bàyyi yoon def liggéey tu wóolu nañ yoonu Sénégal. Awa Fall Diagne directrice des ressources humaines bu ministère de la santé meññee yi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay farine mburu euh, dogal gi nga xamante ni daal jëloon nañ ko moo di euh, arrêté njaay ma ba léegi ñu ngi ci. ñu ne nag la ko waral moy nguur gi sàmmantewul ak euh, engagement am ndax def leen a waxoon ne démb ci àllarba bi la leen fas fay ñeenti milliards yi nga xamanteni euh, mom la leen amel démb ñu fanano xol seeni téléphone te gisuñu benn message bu woné né pay payoor ba duguna yok ci nak signature protocole d'accord ba légui nu ngi koy xaarandi euh, lu ñeel 15 milliards yi nga xamanteni mom la leen nguur gi amel jëm ci importation yi japp leen né ci wéru juillet juillet la ko nguur gi tàmbalee fay liggéey ñu teew li ci Claude Demba Diop mooy président association nationale bi ëmb mële euh, meññee industriel yu Sénégal ci téléphone beeg Alaaji Njoogu Jéen talaata euh, jot nañu am jotaay ak euh, ministre des finances ak cabinet ba am loo xam ni dañ ko jotu tënk li ñu tënkoon moo di benn bi mooy bor bi nga xam ni moom lañu yore loon daaw tolloo quatre milliards sept millions neuf cent mille Euh, ñoom waxoon nañ ñu xaalis yi euh, maanaam ñu ngi seen loxo mën nañu ko fay. ñu woon ni nag ca ëllëg sa dañu waroon def euh, biir maam ci compte ministère du commerce pour que ñooñu mën a fay meññee bu nekk li mu ko yoreel. démb la woon nag jotuñu ci. ba tey suba de en tout cas jotaguñ ci. ñaareeli ponk bi nga xam ni jàppoon nañ ko itam mooy li nga xam ni moom la tënkoon waroon nañ ko xaatim ci benn bataaxal. Euh, pour que ëllëg si biir euh, bu fekkee dara xew na ñu mën ko jëriñoo euh, bataaxal boobu nag jotuñu ci ba looloo tax tey mënuñu tàmbali liggéey bi ndaxte ñaari ponk yooyu yëpp ba léegi gisul guñ ci buntu daal xam nga euh, bi jafe-jafe yi tàmbali entre Russie ak euh, Ukraine bilee dafa yokk woon yokk bu tara tara tar ba euh, ñëpp njortoon nañu ci ca booba saako fan il faut mu yokk nguur gi ñu ne déedéet kooku moom mënu fi am ndaxte ñun jige woon nañu ni dara du yokk ci dëkk léegi li ngeen mën a def mooy yéen continuer leen di di importer blé. waaye euh, lépp lu ci munti am. lu ci ëpp rek ñun ñoo koy ñoo koy fay. loolu nag boo ko xaymaa. toll na fi mu toll nii quinze milliards. quinze milliards yooyu nag euh, nguur gi dafa ñuy nii xaalis bi euh, teewul. waaye njort nañ ni lu mu yéex yéex le dix juillet dinañu fay bor boobu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar dalal na Sané Madio. démb ci guddi la ñu gisee moom Sadio Mané ak def lu baax liñ ko xamee euh, jox na Maguette Seck xaalis mu mel ni nag déggoo ga gën a neex diggante Maguette sekk ak boroom këram Fama ma sama ma dem fu nekk bu kontaan moo nekk ci buumu jokkoo bi démb ci guddi dafa toogaanu buntu kër saajo Sadio ne ca kër ma saar nekk ci banlieue bi ngir mën koo gis. daa ñëw génn. ci buntu këram daan na ma sa waa ma ne ko sa waa ma yaa ngi taxaw mu ñëw te sama loxo dama yow yaa wax Sadio Maajo ma ne ko waa mu ne ma yow yaa ko wax ma ne ko waa bàyyi sama loxo na ma maa ngi ñëw bul bougé après ñu toog ay temps noonu ñu naan Sadio du génnaat rek man génn dem ñibbeeg yooyu man maa ngi ñibbi nijaayam daal di génn yónnee daa na ma wuyul Sadio e ci biir kër gi nag lii la waxtaanee ak doomu bàmbaali bi non xanaa rek ñu waxtaan ay fa même doon nit ku baax nag mu ne la kaa ñu reer dugal la biir këram dafa jafe ci nit kon fa nga reeree démb waaw àndoon ak boroom këram ci wetam màgget nee na maa Mané ku baax la waaye te ku mën a maye la jox na ko xaalis waaye du wax ñaata la jox na ma loo xam ne macha allah maa ngi koy sant di ko gërëm jox na ma daal macha la coono bi ma kii daal na ma njëgu njumte lu mu defoon la màgget sekk euh, si woon ci kanamu sénégalais yi rawatina internet yi kàddu yi sax la waxoon. macha allah da koo jar. Mm. ndax Sané Madio daa ñëw jël combat bi teg ci bakkanam. ma ngoog Fama Dione Sané Madio am na ndam am na ndam. RFM bitim réew. Georges Dethié Diop nu ngi nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. waaw Sané maajo day mujj naa gisee ak Sadio <laughs> daal. Euh, am na lu jiitu woon. am na lu jiitu woon si woon na fi ci internet bi. Ah. <laughs> ñu dem ca Nigéria George nga xamante am na ñu bëri ñu fa faatooti gannaaw benn attaque djihadiste. lu ëpp ñaar fukki nit lañ fa faat ca district bu Dikwa ca état bu Borno ñu def lu ñu wel nag ñu jàpp ne waa ISWAP lañ te ñu bokkee Boko Haram Kumba Sandiane Faye. ay militants yu ñu jàpp ne ci groupe islamique bi nekk Afrique sowu jant di ISWAP la bokk ñoom ñoo daal di jël ay victimes yoo xamante ni seen lim ëpp na juróom fukk ñu nekk ay ferrailleurs. ñoom ñooñee démon ci village Magdala bokku ci district bu ñek nekk ci suuf Borno digganteem ak frontière Tchad bi tollu ci ñaar fukki kilomètre ñu japp ni ñaar fukk ak ñett néew daal nañ leen di gis ñom ñepp ñu daal di leen di fàtt ñiko def di terroriste yi ci xam lépp agence française de presse ferrailleurs yoyé nak dañ doon euh, dem ci village yooyee di out ay métaux manam ay ferraille yo xamante dañ koy récupérer dal di koy mëna ligéyat wante jihadiste yi dañu japp né ñom dal dañ leen di euh, di leen ngir jox ay renseignements autorité yi nga xamante ño ñoo nekk ci bërëb bobé ay renseignements yo xamante dafa ñël euh, jihadiste yi euh, ci gox bobé nga xamante ne yi yu nekk ci Boko Haram fofu lañ ci fin avril lu tolloog fanweeri jihadiste ñom tamit faatoon nañ leen ci village fare ba tey ci gox bobé ñuko defit ñu japp né fi bokk moy ISWAP armée bu réew nigeria nak mom daal na gën a euh, taxawayam ci champ de bataille yi maanaam opération terrestre ak aérienne manam opération yi nga xamante da koy def jaar liko ci souf ak yi jaar ci jaw ji yëpp ngir xeex ñooñu bokk ci ISWAP ak ñi bokk ci Boko Haram mu gën ko dëgëral ndax armée bi néna fatna commandant yu bëri bokk ci yooyee kuréel bu ñu sukkas ndiko ci l'état-major militaire bi te fitna goge la jihadiste yi nag mu ngi daal ci atub 2009 fofé ci beut gànnaarub Nigeria te lu tolok ñeent fukki junni bakkan rot nañu waye it ñaari million ay nit daan nañu génn seen kër daw dem fenen buñu euh, Nigeria, Nigéria ba parti bi di APC nek ci nguur ga mom élection présidentielle bu am ci 2023 euh, bolo Tinubu Lagos euh, ay jamono mom nak mo jël ndam la ci primaire organisé Abuja Mom Bolo Tinubu am Juni ak ñaari témir ak juroom ñaar fukki xobak ya nga xamante ne moom la ñu doon saytu ca guddi euh, talaata jëm àllarba. ñu dem ca Mali George foofu it amati na ay soldaar yu ñàkk seen bakkan ci benn attaque jihadiste. ñaari soldaar lañ fa faat démb ci ab cong nga nga xamante ne jëmale nañ ko ci ab checkpoint ci wetuk Tombouctou lu ni mel nag ay nit ñu yor ay nganaay te xamuñu ñan noo def lu ni am na juróomi militaire ya nga xamante ne aussi jëlee nañ ci ay gaañu gaañu waaye gouverneur bu Tombouctou nee na ñoom euh, ñu ngi ci jàmm. ca euh, république démocratique euh, du Congo ak euh, Rwanda ba légui rataxagul ndax l'armée bu Congo joxoñ na baram tuuma Rwanda né dugal nañ ci estuk RD Congo lu tollu ci juróomi téméri soldat ngir jàppale rebelle yi di rebelle yu M23 porte parole bu gouverneur militaire bu euh, Nord Kivu moo xamle lu ni mel euh, mu ne nag euh, bi ñu tekkee loxo ay militaires yu bokkee ci force spéciale yu Rwanda ca territoire Rutshuru Rwanda dafa soppi. tenue militaire am ya ngir euh, nëbb li nga xamantene modi tewayam ci territoire congolais bobé, tuuma yoy nak wa Rwanda weddi nañ ko ne amuñ fiñ ko tek euh, liñ koy jéxalé modi Ukraine président Volodymyr Zelensky Mom limu bëgg euh, te wax ko tay ci suba modi ñu Russie ci organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture euh, mu ne nag euh, loole lépp li ko euh, waral nee na Russie moo indi xiif lu toll ci ñaa ñeenti téeméeri million ci ñeenti téeméeri million nit wala sax lu ëpp ci milliard kon kuy def lu ñu mel dañ laa war a ci FAO war ñoo renouveler wala bokk war ñoo prolonger adhésion jeex na takk jërëjëf Georges Dethie Diop tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh noo def. maa ngi sant yàlla Barthélémy ñu wax euh, ci euh, saison football euh, ñeel jigen ñi danaka nak saison ba jeex mhm. bilan bañ ca jëlee. jeexagul jeexagul. ña nga ca digg ba. ñu nga ca digg ba ci waaye bilan bi dal rafet na fi. xam nga basket nu mu tëree. Mhm. moo di championnat bu Sénégal. Mhm. amna fi nga xam bu fa tollo ba joué li nga xam modi <laughs> match match de poule kat ya bind club de fin. oui club de fin moy jeexna na de. ci li ma mm. bu ma wal ah, wal ah, football la bobu kon. ah waaw. Ah, kay basket football féminin. wa kay. ya ngi soog yexi yegsi. modi di démb lañ dal di kon boog jéxal saison gogulé eh, di euh, football féminin bi ak euh, final championnat bi kaka gagné nak modi US Parcelles Assini moom itam mo gagné li nga xam te ni coupe du Sénégal diap euh, campagne bu baax ci ñom équipe bu Parcelles Assainies googule eh, démb nag ca bañ doon amal final bi ki di directeur technique national ba di Mayacine Mar amna ay cadre yu mu yëkëti néna dal daal di football féminin bi dal war nañ leen gëna mëna jappalé ndax gis na fa ay talent ñu déglu ko am sentiment satisfaction ci li nga xam moy moo ñu dajale fii muy finalu euh, championnat D1 ak D2 mu daje ak équipe yo xam Casa Sport USPA n'est-ce pas l'équipe de Abda également aussi USPA euh, je pense que tay li ñu am satisfaction moy ñi nga xam ne ñoy yor équipe yi n'est-ce pas encadrer leen te dara fekku leen ci mu nek rek ay passion ak générosité bu ñu am vis-à-vis de ces de ces filles là pour les accompagner à faire leur passion parce que ces filles peut-être auraient pu être, pu être à la maison en train de faire autre chose mais autre chose mais aujourd'hui elles les encadrent et mettent leur poche Combien de filles euh, Abdel a mis à Kaolak, Combien de filles également aussi que le président, le maire a mis à de Finini, Ça veut dire que c'est une, générosité, accès beaucoup football, Donc c'est les gens à remercier, c'est les gens à encourager. C'est difficile, mais encore une fois, la satisfaction qu'on a aujourd'hui, c'est de vivre des moments comme ça, n'est-ce pas jigéen ni xale nek fi jouer final n'est-ce pas ku est content vraiment ken ba mer n'est-ce bu nek nga xam ne football la ñoo ko war a jàppale ñoo ko defar euh, également aussi remercier vraiment la fédération parce que ça aussi le président de la fédération n'est-ce pas parce que championnat bi quand même maintenant mais transport mon en charge ay également Yerenki. je pense que peut-être déjà yokkaat l'Europe plus direct pour que nous également aussi les présidents des clubs parce que c'est vrai que c'est difficile mais les ci am solo coupe d'Afrique bi le euh, Sénégal yi dem également c'est lié la parce que je yi que c'est c'est le donc ça veut dire ñoom pàcc bu ci rëy ñoom ñoo ko liggéey. ñu wax ci qualification yi ñeel CAN 2023 Cheikh euh, niki tey jii la ñuy jeexal euh, match yi ñeel deuxième journée bi. niki tey jii ci ngoon dana am ay jogante waaye ba ca gën a fës moo di diggante. Maroc ak Afrique du Sud match boobu danañ ko dal di amal ci bu 19h euh, jotee 17h diggante Lesotho ak ñii di waa Côte d'Ivoire 16 dina am itam yeneen i jongante bu ci mel ni diggante Nigéria ak Sierra Leone Guinée moom dina daal di tase ak ñii di waa euh, Malawi ci Conakry lay daal di doon Éthiopie moom dina daal di football ak ñi nga xam te ne ñoo di waa Égypte moom Mohamed Salah ca Bissau Guinée Bissau mu fay tase ak ñii di waa euh, Sao Tomé et Principe jamono gi nag may wax ak yéen diggante Burundi ak Cameroun. ña nga ca jàppale ni nag ñu ngi ci 27e minute de jeu euh, pour l' instant nag score bi 0 but partout euh, diggante ñaari équipe yooyu la ñu daal di wax wàllu football ba tey ak équipe nationale locale bu Sénégal di par di prépare li nga xam te moo di championnat d' Afrique des nations ñu nar ko ñu tuddee ko CHAN euh, ñoom nag ña ngay waajal mbir moomule ndax ña nga ca benn tournoi bi nga xam te ne ñu ngi koy amal foofu la ci Algérie ca Blida. du tournoi des quatre nations ñu ci bokk nak modi Sénégal Niger Algérie ak ñi di République démocratique du Congo Sénégal ganna bu mu ñaké match bu ñëk euh, ci digënté mak ñi di RDC 2-1 tay ji 17h sen digg ak Niger lay dal di doon sen jogante bu mujj nak nek dal di amal euh, sen digg ak ñi di Algérie mi ko organiser fat nak équipe nationale locale gogolé ka kay euh, tagat modi Papa Thiaw doonoon joueur ci jamonay 2002 ñu daal di wax Ligue des Nations euh, ca Europe euh, ak euh, suite deuxième journée bi tey jii la ñu ko fas yéene jeexal 18h45 diggante Portugal ak République tchèque Suisse dana daal di tas Espagne Slovénie Mom, dana dem ca Norvège Suède dana daal di dalal équipe bi nga xam Serbie Irlande du Nord Kosovo lay daal di dem Gibraltar diggam ak Bulgarie lay daal di doon Macédoine ak Géorgie tey jii ñu ngoon ci 18h45 jotee non itam diggante Malte ak Estonie ak itam diggante Grèce ak Nidwa, Chypre. Liverpool tey jii la fësal ñeenti jours yi nga xamante ni euh, dana leen bàyyi ñu dem wutali feneen. ci ñeent yooyu ne nag am na ñaar yi nga xamante ni euh, mën nañ leen bàyyi xel ku ci mel ni di fekk Origi moom yi nga xamante ni doomu nekk foofu af euh, daal di fa amal ay jaloore moom bokk na si joueur yi nga xamante ni danañ daal di dem loolu nag doon na lu officiel ak itam kii di seen euh, deuxième goal mën nañ ko jàppee deuxième wala troisième di Loris Karius moom mi nga xamante ni ci Ligue des champions 2018 bokkoon na ci ñoo taxoon kon boog équipe ba pertoon ndax erreur yi nga xamante ni defoon na ko amitam ay euh, quotidien wala bok ay journaux yu bari fu euh, yow fofule ci Angleterre di xam ne ni que euh, Sadio Mané moom itam bokk na ci liste de départ ba jamono gi sax bari na ñu koy xëccu waaye que ca gën a fësle nag Bayern de Munich di champion d'Allemagne. lay way ñu jéxalé walu basket. basketboolu jigéen ni ak play off yi jàppale nak play off yi bu ngeen ko déggé modi équipe yi nga xamante dañuy jongante seen biir ngir dal di jël titre de champion. Euh, fi tolni nak euh, ñi ci bari ci ñi nga xamante ne daal euh, nañ ci play off yooyu le daal dinañ leen xam ba tax na fi mu ñi ngay sentu rek tiré ab bilan ba pare lancé li nga xam modi perspective yi xol ana ban équipe mo gëna a jekk ngir dal di jël li nga xam modi championnat basket bi ci walu jigéen dañ ci dal di déglu Abdou Seye administrateur site Sénégal basket ci téléphone solo Thiam liñ ci mën a jàngat daal mooy euh, la logique a été respectée comme niñ koy waxee parce que soo xoolee équipe yi qualifié woon daaw playoff presque ñoo qualifié waat ren playoff suñu xoolee si jigéen yi euh, poule A bi ASC Ville de Dakar moo ko dominé comme attendu donc après Saint-Louis basket Deboloc ak Jaraaf ñoo ci top. donc foofu la logique a été respectée si on sait que euh, Bob CMT ñoom ñoom Bob CMT ak GBA dañ leen di reverser en play down pour jéem a jouer ce tournoi pour assurer son maintien en première division dans la poule B aussi même chose Dakar Université Club Monek nekk Jean d'Arc moo ci topp ndaxte Jeanne d'Arc Modor Asfo te Jeanne ak Asfo ñoo toppante woon donc euh, démb gendarque bi mu dóoree Asfo euh, jëlaat na deuxième place bi Asfo nekk troisième place léegi ci poule B boobu nag le suspense bi nar a am ndaxte Mbour basket ak ISEG sport ñoo nar a xëccoo dernier ticket playoff yi foofu noonu suñu xoolee ba xool fu mu nekk nii ISEG moo raw Mbour waaye Mbour am na match bu mu joué wul démb am na match bu mu waroon joué démb ñu reporté ko léegi match boobu Mbour su ko gañee day ñëw day ñëw tolloo ak euh, ISEG sport te dernière journée bi dina metti foofu daal le suspense bi amee pour l'instant, mais d'une manière générale euh, liñ tableau playoff yi ak les équipes qualifiées euh, la logique a été respectée pour cette saison encore Mbour basket euh, mom tamit euh, tok na lu yag yag jouer wul playoff chaque année play down lay dem jouer assurer maintien donc ren Mbour basket bu naré réaliser exploit ba dem playoff là ce serait une grosse surprise ce serait même la surprise de l'année.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 jërë ngeen jëf waaye yi conseil constitutionnel bëgg a yeew ci ab gotte yeewi nañu seen bopp enquête dina kay nañu démb la woon ca place de la nation di place obélisque yëral xët mu njëkku yéen kaay bi yeewi askan wi si nañu mooy li journal bi bind Ousmane Sonko Khalifa Sall compagnie yéen bi nee nañu wax nañu ca ndajamane seen liste nationale bi ñu bëgg génnee ci élection législative yi bu ñu bëggee jàmm ci réew mi ñu génnee liste ba nañu ko wax Barthélemy Dias it wax na ko meerum Ndakaaru bi nee na bu yeewi bokkul kenn bokk ay élection du am ci réew mi journal bi dikk ak ñu nit ci mobilisation bu rëy bi waaye yeewi askan wi def démb ca place de la nation nee nañu mobilisation bu amul fenn gis démb ca place obélisque mbooloo mu takkoo takko foo sànni mbàtt mu tak place de la nation ñuuloon kukk ako nit réew mi quotidien nañu na mbooloo ma meloon dafa jéggi dayo fa la Ousmane Macky ak yuuram wayul ministre intérieur Antoine Diome it Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne jot na wàllam ca ndaje ma Barthélémy Dias moo ne gàcce ci am réew moo di Antoine Diome ba tax li ñu bëgg moo di ñu jële ko ca bopp ministère intérieur ministère intérieur ak nañu def ba infiltrer manifestation gi waaye askan wi doon def démb l'observateur mi ngi ñu koy wax ba di ñu wax it ne juróom-ñaari juge yu conseil constitutionnel yi gaañi dal nañu leen bu baax a baax Antoine Diome naka noonu it kilifa Macky Sall gaañi bàyyi ñu leen dara Sud Quotidien nañu ci kaw Macky Sall moom mi nag la ñu sàmbaar ba doyel dégg lu nekk ca manifestation ba Ousmane ko nee na mi ngi ci danger te kenn dugalu ko ci kudul Macky Sall daam boj ni ñu ci bi Macky Sall na moytu boppam te bu bëggee terminer mandaam bi mu nekkee ci teeyu bakkanam na bàyyi liste nationale bu yeewi askan yi mu bokk ci élection législative yi le vrai journal xëy bind ci xëtamu njëkk ne yeewi sàllar ñu ko nañu woote nañu am ndaje réew mi yëpp dem wuy ji leen ca place de la nation ñu wax fa ay kàddu yu fort te tàng jër lancé seenub campagne ba noppi taxaw jatu ne soccet jël seeni matuwaay ne Macky Sall du fi amee troisième mandat sur soit mbooloo mu bari ma teewoon démb ca place obélisque tax mu bind ne yeewi askan wi ñoom moom mbedd mi kàddu Aïda Mbodj ci xët mu njëkk suur suwa Aïda Mbodj nee na Macky sàcc la te conseil constitutionnel moo di ab receleuram Moustapha Niass ak dundam yépp nekk yu fi dara lu dul muucu deretu askan wi Ousmane Sonko moo ko wax ba waxit ne Idrissa Seck moom zombie politique la ne bu mu fekk jee ñi ci nguur gi ba léegi kenn xamatul lu muy nuru le témoin xamal ñu ne manifestation bi woon démb waa yeewi ak waa wàllu yi woon ngir doon bañ seen liste bi ñu bëgg a génnee ci woote yi ñi woote woon manifestation ba waxuñu dara ne mbooloo la ñu bëggoon am nañu ko démb ba doy la ko sëkk journal la témoigne nak ba tax mu xey ko ci xëtamu ñëk modi di gaay yi benn bokk yaakaar yi ñu doon dégg ñu naan dañuy taxaw jàmmaar la waaye yewi askan wi ñàkkante kook ñoom yene kay bi nee kenn gisu leen fànn démb ay dóorkati maxtu financier di ñuy xumbal ko fuural ngir wut lu ñu am noone la leen la teemu ñu tuddee vox populi jël wax ji dellu siwaat ak ñun ci ndaje mi woon démb ca place de la nation mobilisation dëgg kay bi nee mom moom la waa yewi ak waa wàllu def journal lay fo nañu waa yewi yónnee nañu Macky Sall signal bu fort ngir seen liste nationale bi ñu invalidé ñu dugalaat ko mu teg ci suuf waxi 3 procès mandat la mandat nañu waaye yeewi nee nañu loi bu jaarul ci yoon ku ko respecté yow la neex ci xët mu njëkk bés bi le jour ñu gis fa yi naqari waaye yeewi ba taxoon ñu gonte woon démb ab manifesté benn ca moo di seen liste bi ñu génne nañu ko dugalaat ñaareel bi moo di bëgguñoo dégg waxi troisième ci réew mi ñetteel bi nee nañu moo di nañu jële Antoine Félix Diome ci ministère intérieur journal laas mi xëye mbooloo mu bari mi wuy woon waaye yi ci xamal ne rebelle woon Casamance ñëwoon Ndakaaru bokkoon ci manifestation yi fi woon ci weeru mars gëla ñu génn rebelle yooye jógewaat nañu Casamance jëm si Ndakaaru journal bi nañu ci la gaa ba jàpp rebelle bii di Émile Ndéki ca Petit Mbaaw fa lañ ko jàppe fekk mu àndoon ak yeneen fanweeri doomi aadama ak benn bëggoon a dugg si Ndakaaru yamul foofee ndax journal bi mi ngi ñuy xamalit ne Ousmane Kabili Diatta di chef rebelle di numéro 2 bu Paul Alakosine gaa yi général Moussa Fall yi jàpp nañu ko ca Grand Yoff fa ko jàppe yeneen xibaar yu ñu ci las dollil moo di nee na am nañuy xibaar yuy wax ne événement yi fi amoon ci weeru mars 2021 gaa ñi ñu gisoon ñu dugg ci Auchan yi songu Auchan bi ak ay bali fetal ñoom rebelle yooyee la woon NCA santé famille wéer wérle seen gaam yi di Clairissime ak déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi xibaar yi gis-gis jërëjëf Mamadou Mohamed yi jërë ngeen jëf ñu yegsi ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di gis-gis ak RFM kàddu yu ñàggas yu tegginewul yu ñuy sànniwante

maa ngi lay nuyu yow docteur en communication nga euh, d' abord kàddu gi ma bàyyi ko professeur euh, Mor fay professeur euh, boobaak léegi ñu ngi gis ci langum politique bi ay sànnante kàddu diggante ñiy responsable ku je politique bi ak ñi nekk ci nguur gi ku ci nekk ca wàll wa nga ne. par média interposé ñuy sananté kàddu yu nga dal euh daal wul rafetul ci dégg-dégg euh, yow ngay enseignant chercheur en sociologie des médias d'abord euh, ban ban ban jangat nga ci def. en fait jàngat bima ma bi ma ci def euh, euh moy jangal bi ñëpp def. maanaam mm. dal day lo xamni ne wax ju ñaaw ju ñak tegg day loo xamni ni dal daal moom doyna na doy dal

moy que euh, bu fekkee ni ñi nga xam ñoo nekk ci kanam euh, di def politique euh, daal de prétendre ñu jox leen ay responsable ay mission ñu diriger pays bu amul benn programme mhm. ak benn projet de développement ak benn projet de société donc li koy remplacer mooy des fois xamati loolu moom daal laa ci gën a xam daal et puis aussi boo poussé aussi loin la réflexion da ngay sentir ni effectivement parti politique yi am léegi day parti politique yo xamni ne daanaka jëf luñ dal formation ndaxte euh, ci ginnaw jamonoy Senghor même sax ñew na ba jamonoy Abdou Diouf mhm. parti politique yi fi amone muy PS ak ps ak dem ba ci parti ay euh, pays ay PAI ak yeneen parti yi amone école de formation yo xamni tout école du parti nga mhm. xamni bép militant bo xam ba nga yëngu ci affaire politique militant ba ci sax simple sympathisant wa euh, militaires yeeg sont partisans leen di formé mhm. formé ñun ligne politique bëgg Sénégalais yi li bu ni nañu doxal Sénégal mhm. fi ci dem ba ci mhm. remarqué depuis quelques temps moy cadre yi dal yi xamni dafa ñagas lool ak programme côté formation politique da nga am daal la lu lu am solo daan ñëw ak yow ci peut-être éventuellement conséquences yi ci mën euh, yi ci mën tuddee yi ci mën a ñaanu ko yàlla le temps de donner la parole à au docteur Momar Thiam docteur euh, daanaka sax professeur mu ngi koy junj léegi mu di ñàkkum euh, programme est-ce que aussi leader politique yi parce que nit mën nga bañ a sa morom ci doxalinam mais. ci kaw ñàkk ànd boobu nga ne ko lii ànduma ci su ma ñëwee lii laa bëgg est-ce que bu ñu ko doon def noonu wekk ko ci loolu est-ce que du gën a rafetal gën a taaral démocratie bi. xam loolu ci boppam mooy noblesse politique. Hmm. parce que politique dafa nekk lu am solo lu nekk lu noble loo xam ne parce que collectivité maanaam askan wi nga war a toppatoo. Hmm. askan wi dafa nekk lu pluriel maanaam dafa am composition yu bari ku nekkan ci mais li ko jiitu.

Euh, député je veux parler par exemple de de Moustapha Cissé Lo est mm. aussi acteur médiatico politique bien avant 2012 nous donne à Souleymane Jules Diop par exemple qui est un acteur euh, engagé comme ni dans la société civile Hmm. donc société bi ci bopam lañu wara mais euh, responsabilité première bi aussi moy euh quitté nañu mon euh, docteur euh, Momar Thiam xamna Aladji Alaaji Njogu bu ko mune mune le temps que ma jox parole professeur Mor Thiam professeur docteur mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy junj léegi doon naa wax ko sank nit ki mën nga bañ and ak mom ci kaw nga indi proposition bo xamantene peut-être yaakaar nga ne mo gën bi fi nek wa parce que démocratie mom li ko ni ñu ko waxee mooy ay idées lañuy lañuy confronter ay confrontation d'idées la. Mhm. pour jëm ci segg lo xam buñ ko génnee tek ko mu amal askan wi ndariñ légui nak bu fekkee nak légui ay confrontation de personnes ay nit ñoy ñoy dalante day lo xamni fatalement des pro des produits violence té actuellement Sénégal da ngay gis da ngay gis ben campagne politique rek ab campagne politique ba campagne bi jeex do mëna xam ndax. lan la formation politique proposé comme programme. Mhm. local yi jàll rek koo ci boo defoon micro bladeur ni ñi fi gagné ak ñi ñu gagné lan lañ proposé woon programme doo ko xam par contre li li ciy li ciy fës mooy saagante bi. ŋàññeente bi ak yoo xam ne boo ko xowaatee ba ci biir daal di loo xam ne mooy doxal société moo tax ma ni aussi ci kàllaama tubaab léegi foog ñu xoolaat comme ni ñu ko waxee aussi sànq ak ak euh, docteur Momadou Thiam waxee ko mooy foog ñu xoolaat aussi ban façon ban façon système politique lañ bëgg a construire ban façon système économique lañ bëgg a construire ban façon système social lañ bëgg a construire ak yan kàddu moo mën a porter loolu ndaxte bu fekkee dañoo bëgg dem ci kanam. Mhm. yenn wax yi moom yubul seen kenn dara. maanaam daal maanaam daal leader yi bu ñu yemoon ci jaay seen programme rek mu neex. jeex na tàkk mais loolu noonu loolu mooy doxoo am réew tàkk ñun ñun la kii la maamam dee woon ci xare ba loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy est-ce que ñii bu leen tegee nañ mën a jëmal réew mi kanam yan proposition lañ def. Mhm. dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation dans le domaine économique ak pàcc gis ci askan wi lan leen euh, ñu ñu ko li remarqué da programme waxatuñ ko gis ko dama des fois am sax ñu fi ñu fi sax nit ay euh, tam nañ sax nit. tam nit discours purement tribal. Mhm. ethnique loo même pas bon pour la cohésion sociale day day mel ni loolu actuellement moo dox Sénégal wax naa ko sànq daa mel ni daal li ñuy wax naa diplôme yeeg li jaase yeeg yar beeg valeur yi doxatut li dox mooy képp koo xam ne nii la ngoo làmmiñ daanaka boo xoolee da nga am promotion parce que léegi docteur waxoon na ko da gis ñoo xam ne nii euh, sincèrement kàddu yu ñu doon yëkkati di ko teg ci ay nit di ko teg ci ay pouvoir ñu teg ay opposition position yu ñu am actuellement loolu moo leen ko may. Mhm. ba nga jàpp ni léegi kon boo fi amee ab yar am ay diplôme am ay valeur am loo gëm loolu doxut day mel ni ay contre valeur actuellement moo dox waate ñun nit ñi loolu lañ perception boobu la ñuy am te loolu ça devient dangereux mooy boo amee diplôme ça ne suffit pas boo amee yar ça ne suffit pas boo amee teggin ça ne suffit pas par contre boo xamadee euh, ignorant loolu mooy dox ñu dox la poste responsabilité nga nga nga déroulé te loolu lañ fi gis nag nga xam ne donc du coup euh, pour nga mën a ni léegi nit ñi léegi foog nga mën a nga nekk quelqu'un de mesuré sa kàddu euh, di joxe teggin ak euh, teranga ak kersa. Mhm. pour nga mën leen convaincre léegi loolu lu baax la day jafe. day c'est le constat. absolument merci beaucoup professeur Mor Nous ñu ngi lay gërëm professeur euh, docteur mortiam Thiam yaa ngi woon ci logique 5 donne doon détailler sa pensée mais mais d'abord conséquences si ci tout tout là tukkee est parce que conséquences aussi il faut que ñu wax ko. xam nga conséquence première conséquence mooy li wax le discrédit du discours politique madame politique waxinam ak nañ koy defee. Hmm. nit ñi gëmatuñu ko. benn ñaareel bi mooy ni ko professeur waxee tout à l'heure professeur Morfay. Faye. Hmm. mooy que dañuy def un peu la promotion ñi nga xam ne dañuy saaga dañuy invectiver wala dañuy tooñ. parce que aussi foog ñu xam. la la promotion de l'insolence. <laughs> la promotion de l'insolence mais aussi la promotion de la médiocrité. Hmm. parce que bu fekkee ne ñi nga xam ne dañuy saaga dañuy tooñ dañuy invectiver ñooñu dañuy jël di leen jox ay postes de responsabilité ñi nga xam ne tey comme ni ma ko tout à l'heure nekkuñu dans l'élite politique c'est-à-dire ñoom jusque là dañu nekkoon ay réceptacles ñoo xam ne daal politique bi ñoom dañ ko doon jël di consommer comme ni ñuy consommer benn produit de consommation courante mais tey ñu nekk ay acteurs avec la bénédiction des réseaux sociaux les réseaux sociaux ils permettent leen ñu mën a créer seen télévision mën a créer seen radio. di yuuxu di wax te ñoom li ñuy yuuxu di wax souvent presse presse classique du muy télévision voilà, wala ça. yi sax dañ koy reprendre le journaux yi def ko ay il faut ñu situer le niveau de responsabilité la presse aussi ça la responsabilité mais donc à partir de ce moment qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la solution solution miracle amour, parce qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras surtout avec les réseaux sociaux Il faut mhm. nga xam ne des de simple politique acteur nekk filmer d'interroger, euh, di diffuser à grand envergure sur le sur le réseau Nous, nous donc il est du rôle de l'État d'abord un de faire ce qu'on appelle de la communication publique ni État des faits communication contre euh, pour euh, éviter les les les, accidents de la route mmh. pour éviter par exemple l'utilisation de la cigarette parce y en a, la cigarette tue mmh. État responsabilité Bob la pour faire une communication publique pour xool naka la utiliser réseaux sociaux yi ak naka la tempérer ak nit ñi pour bañ a gaañ doom doomu adama euh, aadama bala bana yàq ay couple wala yàq ay nit na réseaux sociaux wala ci di yàq nit ci waxin mhm. loolu état responsabilité la ñaareel bi mooy que parti ci boppam ak organisation politique ak organisation société civile yi dañu war aussi di éduquer par une pédagogie explicative le militant et le sympathisant, on pouvoir question invective ou mhm. aussi dans une logique constructive c'est-à-dire de proposer des débats de fond sur la santé sur l'éducation sur l'environnement mhm. sur le pouvoir d'achat etc., mais du question saga ni nit ki ni la mel wala saga ko parce que dafa dafa euh, dafa bok ci telle ethnie wala saga ko parce que dafa bok ci ci quelle famille et cetera et cetera parce que sinon buñu lolu état bi bu jëlul lolu en charge cette responsabilité en termes de communication publique donc dinañ tollu fo xamné ni on euh, dinañ euh, ni ñi seen bopp comme le disait le professeur tout à l'heure mhm. ñi nga xam sax yallo nañu politique parce que jang nañ ko parce que dañu gëm né donner euh, son temps et son, et, son énergie à l'espace public pour diminuer les lignes. c'est les meilleurs qui vont venir mm. ont leur pouvoir bi ba faire nañ ko war gérer ça. du euh, euh, euh, recommencement. d'accord, merci beaucoup merci merci beaucoup docteur Momar Thiam docteur en communication merci également gërëm ko professeur Mor Faye di enseignant chercheur en sociologie des médias de l'université Gaston bu Saint